cheikh ahmadu bamba wala xadimul xadim mi ngi gane àdduna atu 1823 wéjuram bu jigéen di soxna maam jaara jege ñaale suñu borom muy soxna jaara buso di benn soxna bi am màggal mu di màggalu poroxaan wéjuram bu góor di maam mor anta sali mbàkke cheikh ahmadu bamba xadim rasoul bi mu amee juróom ñaari at la ko wéccoxam bu góor dénk nijaayam bii di sëriñ bu soobee ngir mu jàngal ko alxuraan kookee dénk ko sëriñ tafsir mbàkke ndumbe di nijaay si wéccuxam bu jigéen ngir mu dolli xam-xam u alxuraan gannaaw ba nijaay ba làqoo mu dellu ci wetu daara wéccuxam bu góor foofee mu bind fa ay téere yu bare bare atum 1880 Mamor Anta jóge pataar daldi taxawal dëkk bii di Mbàkke Kajoor foofee la wàcce liggéey atu 1883 Cheikh Ahmadou Bamba Xadim Rasoul taxawal dëkk bii di Touba atum 1887 si loolu ñu baree bari toppoon ko ci yoonu murit ngir li ñu gisoon ci moom muy ñi nga xamante ne ay buur lañu woon demoon nañu ba tubaab yi mbooloo mu bari mi Cheikh Ahmadou Bamba Xadim Rasoul amoon ñu jàppoon ni dafay wote guerre sainte William loolee taxoon ñu yóbbu ko Gabon atum 1895 ba 1902 diiru juróom-ñaari at jàpp juróom-ñeenti at mu def ko fa ñu delloo ko Mauritanie 1903 ak 1907 at bu nekk ay junni junni taalibe di fàttaliku cheikhul xadim muy 18 safar jëm ci bés bu tedd bi di màggalam gi di màggal Touba. nga xam ne moom cheikhul xadim lenn dong la doon woote muy jàmm salaam alxuraan liggéey ba tax mu doon wax baat bi ragaluma kudul suñu boroom si moom laa wékku moom moo ma doy budul alxuraan ak suñu boroom dara ma ci ab fàttaliku jàmbar ci di xaadimul rasul jaaroon fu méttee métti waaye terewul benn yoon jàmbar ja saa su ne da cay génn bokkoon na ci gaynde gu xiifa xiif gi ñu ko booleloon gaynde gu mujjee mel nim xar guddik àjjuma ay noonam tëj ko ci neeg bu lëndam noonu naa ko làmbal mu làmb doj ay gabar ak ay rabbu ñu tëj ko dem mu des foofee ak rabbu mu daldi jublu xebla daldi kabar nee keroog mun te joon ngir tartar kenn du cheikhul xatim ñu ñuy fàttali ni moom cheikh ahmadou bamba xaadim fukki fan ak juróom ñeent ci weeru juillet atum 1927 ci la wàccoon liggéey ñuy ñaan yàlla suñu boroom mu yokk leeram taas ñu ci barkeem amiin kenn du cheikhul xadim